Sané moom moo la wuutu moom nga wuutu fii euh, Alioune Sané avec lui on a parlé euh, des des des arrestations mais ak yow on va démarrer euh, sur la problématique de la de la de la torture des arrestations abusives euh, des des des des forces euh, des forces occultes des nervis mu am le cas d'un jeune bu ñuy woowee Papa Abdoulaye Touré c'est un activiste. ñu wane des images yoo xam ne dañoo gis ñu maltraité ko torturé ko dóor ko mu mel ni euh, dañu ko détenir euh, fenn et les gens euh, la la la thèse qui a été avancée les gens ont di et que dañ ko jàpp ci sa ci sa kër et que ce sont des hommes que vous avez engagés ñoom ñoo ko dóor ba gaañ ko après jébbal ko les les les forces de de l'ordre. sama kër waaw. Bon, là, c'est la troisième version donc que j'attends dans ce, que j'entends dans ce dossier-là. C'est la troisième version. Bon, moi, j'avoue honnêtement que je ne suis pas d'accord avec euh, cette façon de faire aussi. Il y nit di ko torturer ak fu mu munti demee ak ku ko munti def man d'accorduma ci je pense que nit aussi dafa am dignité humaine bu mu war a préserver bon nit aussi su defee dara dama jàpp na ko war a jàpp rek yóbbu ko jëbal ko yoon loolu moom je le dis avec force maintenant si Pape Abdoulaye Touré il est connu mais je vous dis il est peut-être connu mais moi je le connais pas en toute honnêteté barki alxuraanul karim ma main sur le saint Coran je le connais même pas musuma ko gis musuma am occasion ou chance dégg ko donc c'est une personne qui m'était inconnue jusqu'à ce que mu am problème ci sama tur mais man xawma ko musuma ko dégg donc première question comment tu peux demander à des jeunes bien à des soi-disant nervis ñu dem di rechercher quelqu'un boo xam ne yow xamoo ko gisoo ko déggoo lu muy wax déggoo lu muy def man j'ai entendu pour la première fois le nom de cette personne bi ñu ko jàppee ba ne dañ ko man maa ko wut ay nit donc première version bi ma njëkkoon dégg mooy depuis deux jours dañ ko jàpp dugal ko fenn di ko torturer bon par la suite ils ont dit non non dañ ko wër ba jàpp ko yóbbu ko gendarmerie bon cette fois-ci j'entends dire que sama buntu kër lañ ko jàppee bon c'est curieux suñu ko jàppee sama buntu kër je pense que la question que tu dois poser. mais c'est un citoyen ah, qui a le droit de circuler librement aussi hein. toutes les versions. Ah. yaa ngi dégg je refuse toutes les versions mais dama lay jaar ci question bi nga posé pour mu wax ci su fekkee ne réellement suma kër lañ ko jàppee wala ñi ko wax war nañu poser question mais dans dans un moment de tension. comment quelqu'un peut se retrouver subitement donc devant la maison de Pape Malick Ndour ba ay nit di ko jàpp c'est une question pertinente que tout le monde bu bëgg a dëgg war a je ne dis pas que c'est ça que ça li may wax rek mooy c'est une personne que je connais pas xaw ma ko et au-delà man doxewu ma ci affaire u nervi man du ma dox affaire u nervi xaw man lu ma xam politique lu ma xam opinion lu ma xam position laa xam et man mes positions je koy défendre avec euh,